ahmaduna kadare imam amarinda agwasam sutibi bayo sanana no ajal gamugila bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër yéen ci yàlla Muhammad waa kër maam Cheikh Thiénaba Amary ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp dafa mel ni nag waan nañ fii tey euh, ànd ak euh, sunu kilifa goo xamante ni fa tabarakallahu missionnaire bu rëy la ci kër maam Ahmadou Ndack Seck bokk ci ñi nga xamante ni kenn du ni waa kër maam Ahmadou Ndack ñi tagg yonent bi lu dul danga koy boole ci ñi ñuy jiital kooku mooy Pape Abdoulahi Mbuub mu sunu wayjur Baye Alaaji Ousseynou Mbuub waaye xam ngeen ne bu ñu tolloo nag ci bis bi temb moom xel yëpp dañuy bokk rek di déglu ak di xaar ak di tàqamtiku ak di nangamtiku li nga xamante ni bis bi ñuy sargale Serigne ba maam Ahmadou Ndak ki ñu nak àndal nag mooy Pape Abdoulahi Mbuub waaye am ci ndigalu Cheikhu ba bu ne rawatina nag sunu baay bi fi toog nii di bàyyi Serigne Assane Seck fa tabaarakallahu Pape Abdoulahi Mbuub moomu mi ngi jëlaat ab woote nag di woowaa adduna bi yépp di woote nag fépp fu taalibe maam Ahmadou Ndak nekk waye fepp fo xamanteni rek euh tariikha nek na fa pap Abdoulaye mi ngi lay wo di le 2 décembre waye nak ma len di ci wax surprise bu reuy bo xamanteni fa tabarakallah bu mako waxe waxee ñep di ngeen contane yéen ñi ak man yëpp di ngeen xamni pap Abdoulaye mi kat fa tabarakallah ku roy jikko yaronte bi la sallallaahu alayhi wa kon xam ngeen ni bis ba le 2 décembre lay doon ci place de France fële ci Thiès nako baye xel lan nak moy bëgg xew ci bis ba xana at mu jot rek Pape Abdoulaye mbop defal ñu ay surprise yu defal ñu ay surprise yo xamanteni ni njabootu Ahmadou ndag yépp nañ contane waye bi nak mom njabootu wa keur mam ma jojé ay ba pare ndax fa tabarakallah yakana annonce bi ci sen nopp lay ñëk dal kon na ñëpp xamni ni euh, programme bi di ñëw pap Abdoulaye mbop dafa jël marénu fami bi def ko suñu xarit suñu soppé ñun ñëpp di xaritu kër gi di xaritu ba waye di xaritu kep ko xamanteni yaangi bege ngi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane na nak wa keur Cheikh Sidi Hadji malik di soppe Serigne Babacar Sy muy soxna Mbaye ñang mom la pap jël tay def ko muy marraine bi fa tabarakallah mu nek lu reuy wax nañ nak yonenti bi ku euh, ku daan diisoo ak ay soxnam la waye ku len bàyyi won xel la dem na ba ci ak oyof sax ñun yonenti bi daan na dem sax ba dafa daan bootante ak ay soxnam kon pap Abdoulaye lolu nga def Euh, defaloo ko kenn man xam naa ni soxna Bintu Faye rek nga ko defal ndax fa tabaarakallaahu moom itam nag gis nga mi ngi noonu ñëw toog ànd ak mbaaya euh, tax xam naa ni lii euh, wax dëgg yàlla ay xalaatam yu rafet ak taxawaayam lépp mi ngi ci biir Pape Abdoulaye Mboup jàngal nga ñu tey bind bu rëy kon loolu na ko ñëpp xaar na ko ñëpp bàyyi xel xaw ma nag ku waajul daan nañ waaj nag waaye fi mu toll nii nag njabootu kër maam maa joojo moom délégation boobu man mii maa koy jiite ndax mbaay wax dëgg yàlla. Euh, ba mu ne jógee xombal ni cëpp fii rek nga xamante ni bàyyi ko ci euh, sama kër turandoo euh, Cheikh Mouhamadou Mansour waaye dafa ñëw rek jël bët boobu ndeysaan dañu ko xoole waaw bu ko bopp méttee sax mu ne sóora kaay ñaanal ma kon bis boobu sunu bis la yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. ngalla yéen mbokki Thiénaba yéen bu leen sàggan waaye ana soppey soxna mbaaya yi bu ñu sàggan way ku ci soppu sëñ Babacar way ana soppey Pape Abdalaye way ana soppey Pape Abdalaye way ana soppey Soxna Binto kii ku ci saggan bis bi ku ci saggan bis bis bi fii ko ci sàggan ñu dem ah foofu lañ koy dagge rek ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm lii rëy na lool xam naa ne yi dina bari mar bu la neexee nga taal caméra bi bu la neexee nga fay ko waaye kàddu yi mënatu moom mënatu la waaw Bintu ñu ngi lay ñaanal Pape Abdoulaye dafa bëgg lu rafet moo tax ma kontaan waaw soxna Ngok sëriñam sëñ Babacar borom bone kaare bi nga xam ne du ko sengal du ko jengal du ko wengal fam ko teg rek la ko teg way imaanaay la tehmi me la maasayaawo way laana ma añul sunu sëriñ sëriñ Babacar se way imaanaay la ndeysaan عجنا عندما يا ويمانا إلى يا ويمانا إلى ويمانا إلى من المزايا وي وي سنبا يا موسى بابا كرلا ويمانا إلى نيزان تالي بس الخجاك الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجوه للذي أخلاه مولاه أنا ويسون بنت موسى بابا كريا وإيمانا نيسان أجنن دم ربا بلا خلوه تنا أصحاب علنا حتى استقاموا فيا الله من آووا soxna Binto Ba Anta yaa way maanaay la ndeysaan ku soppu sëñ Babacar bi hikmatil aw bi alim هذا تربية نعم المربي مرب الحق يرضى ويسخن بنت أولاني ويلو بيمانا إلى ديسان ما يا ميمانا إلى تحميم المسايا ديسان ñoo lay gunge ca Cees bay maanaay la tahmiim la masaaya way ndeysaan ñun de ñoo lay gunge ci Cees ba fay maanaay la tahmiim la masaaya ndeysaan jaar ersa jël bintu fay tay maanaay la تهميم المزايا وإيمانا واو واو dañuy dem ca Cees bay maanaay la baya yow mi la masaaya way maana ndeysaan yaayu njaaga ka say maanaay la tahmimi la masaaya ndeysaan sëriñ Mansour yaa yoru xilaafa gi mama sabaay baala ko jox loolo yàgg na min arrahmani wal jaawo waaw waaw fukki at ak juróom dara ñaawul soora wàcce nga waaw waaw ala Serigne Mansour yaa yor xilaafa gi fukki at ak juróom dara ñaa soora wàcce nga mina rahmani wal jaawo moom rek du moom ma fi yóbbu téeméeri nit ak fukk ak benn ca Makka ñora Serigne Mansour yaa yor xilaafa gi moom dongu fukki at juróom soora wàcce nga min arrahmani wal jaawo moom rek moom moo fi yóbbu téeméeri nit ak fukk benn ca Makka mbaaya soora wàcce na min arrahmani wal jaawo ab def nga lu baax mbaa yaa wàcce na mina rahmaani wal jaawo mbaa yaa wàcce ndeysaan yow pap def nga ndeysaan mooy magi bintu fay mbaaya wàcce nga min arrahmani wal jaawo ndeysaan yaayu maati ñaang mbaaya wàcce nga min arrahmani wal jaawo way matiña ngay sunu yaay mbaaya wàcce nga mina rahmani wal jaawo mbaaya ndeysaan mooy yaayu yandak fee mbaaya wàcce nga mina rahmani wal jaawo mbaaya ndeysaan yaay ma gibinto mbaaya wàcce nga من الرحمن والجاو بايا نيسا يا يما تنغو يا واتشيغا من الرحمن والجاو بايا فمرا suñu xol dafa sedd tey ku koy dimbali maanaam li Baye Omar ne woon yonent bi bennoo la santaane ak rafetal motax biñ né soxna mbaay bintu ni bëri jog taxaw man kontan na mais xamna ni pam mo gëna gën kon yen, yalla na leen fa chat daw ni ngeen ko andé won dugg-dugg bu am solo seen diggante macha allah rafet na yalla na gëna a rafet bax na yalla na gëna a nit nak so bëggé sa borom kër da ngay fexé ba jubok sarak nit bo bëggé sa borom kër sarak day fexé ba jubok mag secret bi de. bu génnee lu muti da koy am xelam day dal man ngaa nekk ak sa soxna nag di ko tagg di ko sagal nan ko yaa baax mais bu fekkee ñaari soxna yi déggoowuñ danga koy jaay dong duggul ci sa man maa la wax loolu nag man dama naan ay daang dee la mii lu ngeen ma defal te jubóowu leen dama leen di nax dong fekk na am na lu may lijjanti bu sottee ngeen xam ko mais bu ngeen juboo soxlawu ma keneen maa ko ndaxamal xamal tax kenn du ma raay man juboo dafa am solo waaye nag ñoom nañ waxtaan rek te yàlla tax exemplaire lañ ci àdduna bi nag ay daang ndey benn jëmm lañ loolu yàlla defal na ma ko kon dañuy ñaan yàlla mu dolleeku moo tax nit nit da ngay am fulla ci côté boobu sa njaboot bu leen kenn def neneen sama papa li tax mu bàyyi ñu fi ñu mën a def nii bokk ndey ak baay bu suñu yaay àndul lii dina am kon ñoom bu ñu àndul ànd baa ñàkk dérange da ngay xalaat ëllëg say doom kon dañ tàqali ko ndax yaay daa mën a digal doom lu nekk mu def ko mais bu ñu fekkee seen i yaay ànd doon benn njaboot gi benn lañu doon bis bu jot ay dem yi ñëw fi ay damu ndaw yàgg fi lool ma koy romb sax du ma xam ne mi ngi fi loolu buy seen yaay jubóol woon du am ayda bu may ànd ak moom dem Thiès seen kër bu bañee ñoom fanjaay sonal ko oto bi la ñu jaar ba kër ndee la ñu wàcce leen fa suñu wuñee ko jëlaat leen loolu du ak jubóo lii war a am ku ci nekk nekk ku ci nekkul ci lii nga war a ne te ñëpp a ngi ci nag nekk leen ci lii moo baax gàmm gi bu jotee ku xool sa morom jooy sama papa liggéey te ñoo bokk baay te ñun ñi bokk baay ñoo gën a jigéen ñi nga bokkal ndaay loolu xam ngeen ni dëgg la kon nañ ko def nañ ci continuer nañ ci taxaw keneen ko def leneen juum nga te tooñ nga pap tooñ nga ma tooñ buub tooñ paate tooñ taalaak ñëpp bëgguñu loolu kon nii ngeen def ci laa bëgg ci laa kontaan man billaay su ma gisee ñaar ñu juboo lu ma am dinaa leen ko jox kon yàlla na bu saytaane dugg yàlla leen yàlla far cat kontaan nañ bu baax a baax a baax pap moom lii mu def nii moom man moom wax dëgg yàlla kontaan naa ci lool ndax nit mu lay sagal di la jàppale di la taxaw ba mu mel nii ba nga am lii nga am ñu lay dégg fu ne ci réew mi PAM mi tey jii lu tant rëy-rëy ci cana ba wala bitim réew kenn ñi mu fa te dem te te jiitaloo ko loolu nag avant muy am ba mu fii mbaay soog a ñëw loolu amul woon mu koy muñ di góor góor di ànd ak moom di ko jàppale di ko defal loo xam ni PAM mënta wax lépp ndax ku nekk sa aaw ba yàgg ak moom taxaw na la ci côté bu ne kon soo amee bis tudde ko ko ñun dañoo bëgg lu baax ñun ñëpp suñu xol da sedd sama xol sedd na lool ni dal li dafa baax waaw ndela dama ne ko ndela ma la ngay xuluk ayda dama lay door aw yedde du la faral mukk ndax lañoo dundul sekk lo xamni fekke woko mu koy muñ kon so ñëwé so soxla ci man dara jaaral ci mom ma jox lako ko xam lu ci jublu pour ñu jubo suma ma neexee daan ni ndeela soxna la ayda soxna la mais duma def loolu kenen di ci dugg ma deful lolou mané ko soma ma ma bañ demal ci Aida mu wax ak man ma jox la lolou nak moy digënté tay mbaay mi ak Bintu fay xam ngeen ni Bintu mi bu ngeen ko don tag lu ngeen koy tagge suma ko waxee yeen ñëpp naan waw ku yaru la wax leen ku yaru la ku bax la nit la ko xamanteni tamit man sax dama ko man sax bu fi ñëw damay damay sax rouss da damay bëgg mu nekk ci kër gi di ruubeeg yëpp même dafa yaru rek bax kon nag mbaay baax na lool mais bint mi naq wu la àndal kon yàlla na yàlla lafal leen cat kontaan nañ bu baax dañuy yemale suñu kàddu Pape daal ñun kontaan nañ daaw nii nga def bàyyi ba njaboot yëpp teew nga wax wax ko Anta ko muy mu yanuy loxoom lii dafa baax lu baax da ngay xool fa mu baaxee nga waxee ko fa mais wax joo xamante ni du palaasam du neex fii nag mooy palaasam te neex na lool walaay bu ngeen nangul micro bi damaa kontaan man lu baax laa bëgg lu baax laa bëgg mbaaye yàlla yàlla àggale

mu dëgg Thiénaba TV léegi su ma duggee rek te booba pro euh, émission sëñ Ass lay woon te sëñ Ass ku ne xam ne ku ko bëgg laa ku ko gëm laa ndax sama alaaji bi na ku ko ku mu bëgg bëgg naa la firnde gi ma nga ne sëñ Ass Seck borom digg la ngi taa daagu sama doom waaye su ma duggee bëgg a war a wax ne ma ne ko naan barke sëñ Babacar Si maanaam xol lu ca njëkk da cay të sëñ Babacar fa jiit sama xol bi ñun sama papa yi mu xàddam sëñ Mansour si borom daara ji ma yoroo ka sëñ Mansour boole ji nekkoon présidente daayra topp Seydi Jamil bu xombol boo ma jugee ca daayra ba daanaka sama ñëw cene ba fii ci loolu la ko yàlla jaarale barke yeen di bi ma ñëw nag ba ma astee sóora bi ma nee ma sóora ki mooy sóora barke salaatu faatee ca la ko yàlla jëlee sama xol bii ubbi ko ba mu dugg ba mu ubbee ko dugg ci sóora te def ci dañ mukk ci àdduna nag ndax turandoom laa koy xoolee Ahmaduna Kadarai Mam Amarinda aguwa Sam Suti